Éducation sur Cine TV. Santé sur Cine TV. L'actualité sur Cine TV. Politique sur Cine TV. Sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Culture sur Cine TV. C'est un par Cine TV. on a rencontré également bokk de pathologies ay pathologies yu bëri feebar yu bëri ràññee nañ leen fi ci mel ni hypertension côté xale yi gis nañ feebar sëqët yi feebar wàllum biir yu métti yi nga xam ne wàllum saan moo koy waral bëri na fi wàllum tension bi également problème surtout parce que am na maladie yu bëri bëri bëri yu ñu rencontré am nañ problème tension gis nañu feebar mu bët yi aussi bëri na si dëkk bi effectivement am na cas yi nga xam ne c'est des cas problématiques ay cas yi nga xam ne day nécessité ñu jàppale malade yi pour que ñu de prise en charge spécialisée campagne bi nag du ñëw xool malade yi rek demaat day amal yi nga xam ne nécessité ba parce que jox na exemple benn cas gynécologique bu fi nekk rek benn femme boo xam ne jigéen boo xam ne biir bi mu ngi rëy donc certainement cliniquement li ñu jàpp ay fibromes yi nga xam ne ñoo nekk si biir bi la femme boobu day nécessité ñu jàppale ko mu def échographie wala def scanner bu laajee opéré ñu xool nañ koy jàppale ko parce que déjà mu ngi am feebar mu ngi am problème am doom bii bi mu ngi rey mu ngi koy commencé sonal donc ces cas là ay cas xam ne dañuy nécessité ñu qu'il faut bu laajee ñu opéré ñu opéré lu ci war ñu def ko ci suñu gox yi nag gis surtout bu ñu jëlee exemple hypertension bi rek gis nañ ne lekk bi problème la nit ñi xëy xamuñu nu ñu nekkee ak nan lañu a nekkee loolu day indi problème feebar tension boo jëlee saan biir yu métti xale yi ak wàllum euh, sëqati xale yi yow yëpp environnement bi mun na ko waral mais également lekk bi surtout lekk bi nga xam ne ak ñàkk manque hygiène bi yooyu yëpp day fa waral fay feebar yu bi moom solo rek la mën a am parce que problème population bi nekkul ne pour ñu dem gis fajkat mais certainement problème bi am na ñi nga xam ne ñu ak seen feebar di ko sooxaale xëy problème moyen la pour ñu dem donc campagne occasion pour nga mettre en rapport avec les spécialistes. Nous avons wane seen jàngoro ñu nous leen jàppale également nous, Nous dañuy suivi à long terme ñu inspecteur du travail et de la sécurité sociale également coordinateur du mouvement politique de Debout également dans une coalition bu vraiment boo xamante depuis 2019 Nous ngi ci ñoo xamante ne ñu bëri ñu ñu ngi ci parti yu yoo xamante c'est pas les mêmes partis, mais quand même wóolu nañ coalition bi wóolu nañ njëriñu coalition bi ci biir commune Patar ñun commune Patar moo ñu sax te yaakaar naa ne depuis fort longtemps ñu ngi ciy liggéey loolu moo tax vraiment donc ñu ngi fi gis ñëpp ñu taxaw je pense que ku nekk am peut-être foo fêter, am na ñoo xamante également aadama moo tax rek ñu jóg mais am na ñoo xamante également am nañ parti ñu bokk mais l'objectif commun c'est vraiment briguer la mairie de Depuis fort longtemps, nous sommes venus. Nous avons été initiés. Nous avons été en français. Je pense que 2021, nous avons une journée de consultation médicale. Nous avons été un jour de samedi. Mais quand nous avons 18 h nous constatons que la population de sortie. Nous sommes obligés de consulter. Cette fois-ci, la population de sortie il faut que ñu def ko deux jours loolu moo waral tey ñu def ko samedi ak dimanche peut-être demain di ngeen am le nombre exact bi nga xamante ne moom lañ moom lañ consulté mais li ci am solo mooy que dañu sentir ne wax dëgg fa yàlla population bi soxla nañ ko soxla nañ ko doublement doublement mooy que am na ñoo xamante dañu am jafe-jafe pour dem hôpital se faire consulter mais également am na ñoo même bu ñu hôpital consulter wu mën nañ am jafe-jafe pour mën am ordonnance médicament yi loolu moo waral vraiment di tax ñu ne ñun à tous les niveaux qui intéresse la qui intéresse population locale yi yaakaar naa ñun ñëpp dañ ciy taxaw bu ñu yegsee filles, je pense que ñëpp pas ci jàpp ñëpp pas ci jàpp politique ñu dul politique tey boo xoolee équipe médicale bi rek sa xel war na dal ci commune pas, parce que ni ko piloté doon ay médecins vraiment avec Kangam yu mag c'est partenaire tout Les bu ñu ko c'est parce que derrière les gens se sont engagés se sont investis boo xoolee organisation bi rek wax deug fa yalla car macha allah kon li moy développement li moy and and bu sincère and bu yag and bu deug lii mooy jafe yi bëri na trop wax nañ ko sank vraiment constaté le plateau médical vraiment c'est un plateau vétuste wax deug fa yàlla méngoowut ak jamono to lolu war nañ ci taxaw bu baax a baax pour relever plateau bi mais également xol jumtukaay yoo xamante ni day ñuy permettre rapidement ñu mëna évacuer suñu malade yi parce que loolu du ñàkk tey bu ñu ba commune Patar bu amé benn ambulance ci la yem waxatuma la Patar centre bi nga xamante moy centre commune bi amul ambulance pendant quatre ans yaakaar naa ne loolu difficulté bu mag jafé jafé bu mag vraiment dañuy lancer un cri de cœur à l'ensemble des forces vives de Patar ñu jàpp ci mais également aux plus hautes autorités de ce pays Nous savons que lui ambulance bi wala ay ambulance je pense qu'on a quatre postes de santé quatre postes de santé on a Ndjambour, on a Mbadat on a Telayargou et on a Pata. peut-être un dispensaire au niveau donc euh, de de et également de Wakaljamb Jam Ce n'est pas pas trop fonctionnel, des cas de santé. encore beaucoup d'objectifs majeurs, objectif majeur journée parce que nit ki beaucoup ko consulter gis ci pathologie boo xamante leer na façon dafa soxla suivi te kooku amul moyen doo ko bàyyi noonu yaakaar en rapport avec spécialistes yi nga xamante ne ñoo jiite équipe médicale bi lépp lu ci am rek dinañ def une synthèse pour ñan ak ñan la les possibilités pour ñu mën leen a mën leen éducation sur Cine TV santé sur Cine TV l'actualité sur Cine TV politique sur Cine TV sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Culture sur Cine TV. C'est un écrit par Cine TV.